asalaamaaleykum mbooloo mi ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci sangub sang yi ñaari waajur te di rafetlu jataay bi parce que yaakaar naa lii nekkul ci gan parce que ñun ànd na Gaston Mbengue ci Fat Place teeru bi ci yu mel nii noog Assis Ndiaye ànd na noog Fallou Ndiaye noog Assis Ndiaye ci ci Sidi ah, fii nag jotaay yooyu yëpp yaakaar naa bi moo ma ci gën parce que man yaakaar naa nit mbokkam te man xaagaan laa te xaagaan ku la xam ne dinañ ko di nuyu nag premier Ousseynou mii nga xam ne sama rakk la sama jëmbaat nekk koo xam ne dafa départ rek ñëw seen si ma waxtaan ak man def ma conseil def ma lépp balaa muy def dina ma tàggu te lu ma ko ci def looy dina def loolu te xam na ne ñun xam na affaire yi xam nañu nu ñu jàppale parce que yàgg nañu na nañu la am nañu promoteur di nuyu Birame leader bi yàgg na ko suñu xarit la suñu lépp la di nuyu Moussa parce que ñëw ko maa ko yàgg ci marché bi mu nekk sama rak nekk ko ak jom xoolee Cheikh Niang li ma ko tegal ci combat mat na fukki combat ak juróom li ma ko wutal ci ay combat yooyu lu ko tegal ëpp na ñaar fukki combat di nuyu parce que boo gisee loolu nag Cheikh dafa nekk mel moo xamante ni ñu baal ma dafa gore parce que man dama ko doon organiser ba noppi muy bëreeg sama mber ma taxaw di conseil sama mber ba sama mber daan ko wala mu daan sama mber ba set ma xëy aññi këram yaakaar naa loolu sportif boo ko man te si daanaka mën naa ne li mu bëree bëri na doonul mber mu ndaw mais xale bu tuuti la dafa dafa teel a bëre parce que doomu mber la di nooyu bourse soosu bourse parce que moom it suñu rakk suñu xarit la ñoo ko yar di nuyu waa Moussa ñëpp rek. woo naa ko benn booy laa jot ci téléphone am. ma day na la moom moo nekk vice président Bawol sans frontière. Bawol sans frontière ñu taxawal. waaw pour que xale yu Bawol yi mbër yi muy promoteur yi képp koo xamante ni taxaw nga nekk ci lu mel nii rek ñu ànd ak yow jàppale la ba nga ak fi war ak te yaakaar naa loolu di wane na ko. Ousseynou nag nekk na koo xamante ni promoteur yaakaar naa làmb ju mu teg man gis naa ne ni ngeen taxawee nii bu ni waa mbus naa taxawee waa biir bu jaan taxaw noonu yaakaar naa lamb ja jarul jarul sax moom jarul muy sonn kon saa yu tegee stade bu kenn warisul rek waa ngu jaan dañu ko war a feesal parce que nag nit mbokkam te bis nit lamb première il faut sa waa gox ñoo lay jëkk a jàppale ci lépp looy ci at moom ñun nag euh, mën naa ne tey première am naa contentement ci woykat bi muy Fatou mi parce que yaakaar naa gisante wu maag moom tey bu am talent la ku jar a jàppale la parce que it nag euh, dëkk boo ci nekk yëpp ñi nga xamante nii dañuy yëngu ci affaire aar rek muy promoteur bi muy mbër yi war ngeen koo mën a jàppale fu mu ak fu mu war a àgg vraiment daal kontaan nañu ci teewaay bi parce que xaj na bi ñu ñëwee ba léegi sax suñu xol dafa tooy parce que ñu accès daa mel ni ñëw moom signature bi te du ñu am du ñu man na nag ku ne doo daw responsabilité am na loo xamante nii wax dëgg yàlla bu la yàlla tegee da nga xam ne lii parce que man tey xaj na amoon naa ngar Ousseynou xam na ko parce que ay jàng lañ ma tuddee ca jàng laa jóge suñu yére bi ma ñëwoon aw si fii presque dama battale délégation bi te xaj na loolu chaque jour dina am ñu luy tuddee dara di lu ci dara mais loolu yëpp ñun ñu ci daw responsabilité parce que ñun daw daawuñu joxe parce que li ñu xam ne yàlla loolu koy jox. te xaj na woy kenn taxawut nee lu ma woy parce que ne ngay di xaj na xel yëpp ci yow loolu nag. bind na ci nit ñu mu sentir ko ci suñu bopp ba fépp suñuy dem dañuy préparé suñu bopp ci lépp te wàññi ko dara di ñaanal ñëpp di gërëm ñëpp di wax waa Mouslaam ñu jàppale Ousseynou vraiment bu ak suñu bëgg ak te man maa ngi taxaw ci kanamam am na lu ñu def loo xamante ni man yàgg naa ko jaar suur bu ma duggee reefan dinaa dugg mu jaar te mu jaar première ba ma fay dugg booba xale bi tuuti laa xaw ma Dakar saret laa fa doon duggee di jóge reefan di ñëw Ngoundiane parce que boo xoolee Ngoundiane tudde na lu ma fa doom sama taaw ku nekk Ngoundiane laa ko tudde mu nekk Asou yaakaar naa kon man Ngoundiane xam naa ko kontaan ci teewaay bi di looy maire Mbaye parce que moom suñu xarit la suñu doomu nay la te bépp programme boo xamante nii tuddee nañu ko ko wala bu cay dem dinañ ma woo ne ma présenté ñu fa jërëjëf loolu daal la ko loolu wax bu ci njuum te amee nag ñu jéego rek xam ne affaire bi na nañu ko xayma te mbirum liggéey dafa jéggi dafa jéggi daayoo ci ñun daal jërëjëf waa biram ausu billahi mina seytaani rajim bismillah maa ngi nuyu ñëpp di siyaar ñëpp di sante samay waajur maa ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaar bu baax di leen sant bu baax a baax di leen naan Ousseynou lu mu man rek ay waajuram la nu mu mel ay waajuram la vraiment maa ngi leen di sante bu baax di sante waa naa sant waa Ngunjaan waa jaag tund ba yëpp su ma waxee tund mbus naax ak jaag rek wër naa lépp vraiment ñi di sant tamit ñi fi tew ndax lii dafa rafet vraiment ndax nit ki tamit eh, nga woote ñu wuy si la yombul vraiment di sant tamit waa mbus naax production ndax lii su meleen nii yàlla ak ñoom la vraiment ndax lii yëpp ñoom la di sante suñu grand suñu kilifa suñu tonto Badajon maa ngi koy sante bu baax di leen wax tamit da ngeen koy door a gis ci programme Mbusna production ndamee moom ci ñi sañ ci Mbusna production ci la bokk yaakaar naa biram xam nga lépp vraiment ndax fekke nga lépp waaw ndax soo gisee fi ñu commencé Mbusnaax lañ commencé suñu combat yi ñu fa njëkk a teg sax ñan ak sangu moom moo ko taxawal def maa woo rek ne ma combat taxaw na joxel avance soo yorul ma jël sama xaalis joxel ko te noonu la ko defee vraiment ñu continuer mu taxawal George Bush ak Cheikh Niang yaakaar naa ñi nekk ci salle bi yëpp tabaski ñuy woon lendemain tabaski ñu ngi woon jaan gis nañu stade bi nu mu mel grâce à moom tey mu ñëwaat taxawalal ñu Cheikh Niang ak caatu Kairé Thiatou Kairé dafa ñëwul combat boobu ñu ngi koy amal le 16 juillet stadium Iba Mar lépp moom la tey su ñu xewlee mu bay léppam bay ay itam ñëw ñu nekk ay ndaw mu ñëw taxawuñu kon li képp li may wax chaque jour rek naa Production dafa am wéeruwaay waaw te tamit ay ndaw ñoo koy doxal ndaw yoo xam ne duñu ragal duñu lijjante waxu nit waxu ginnaaw duñ ko lijjante ñun li nekk suñu kanam rek lañ xam kuy wax ci ñun amul problème ndax duñ duñ déglu kenn lu ñuy jëriñ daal la ñu déglu vraiment di laan naan vraiment ngunjaan ak mbus naax yëpp teew nañ fi vraiment lii dafa rafet biram ñu jëm ci combat combat bu rëy balaa may dem ci combat boobu tamit di sant samay doomu ndey waa Fallène famille ñëwee nii seen taxawaay dafa rafet gis nga nu def vraiment ma ànd ak ñoom tamit ndax ci laa bokk ci journée jouru korité bi ci laa bokk ndax man maa ko war a jiitu ñu tab sama kaw vraiment di rafetlu tamit seen taxawaay am na solo ndax tamit dama leen woo ñu bay wu lay woo nga demoo fen loolu rafetul yéen mbër yëpp ñu bay ci loolu xel waaw ndax ñun ay ndaw lañu ay moroom lañu dañoo war dañoo war di jàppalante vraiment di ñëw ci combat bi biram combat bi combat njarndeem la combat soog la neexul woon taxawal ci li ma dégg ñaari mbër yi yàgguma leen suivre te bi gars bi combat bi taxawee 3 ans gars yi nee nañ ñu ngi koy dox 3 ans mënul taxaw yàlla dimbale naa production mu taxawal combat bi kon nag eh, yàlla ñu ngi sant yàlla bu baax tamit di leen wax naa production muy ci yoon ndax suñu deful woon preuve suñu leen wooyee ci combat comme nan daan nu mu daan demee lay demee rek vraiment ndax am na ay promoteurs yu bëri yi dox combat bi bi ñuy fasalee combat bi ñu bëri dañ may woon ndax combat bi taxaw na wala taxawul kon nag combat bi combat Sokh la te tamit wone nañ ko ñu ne ci salle bi yëpp xam nañu combat la vraiment di ñaan tamit ñu fekke ko ak jàmm vraiment tal ko vraiment mbëri tamit wer vraiment tal ko vraiment di sant tamit seeni ay ménagères ndax tamit ñu ci jàpp lañ vraiment suñ ci jàppul woon kon combat bi du taxaw du kaaw euh, Gora Sock du ta du kaaw kii mbër mi dekk jàg de Sarr vraiment ñoom ñëpp dañ cee jàpp wax dëgg yàlla di leen wax tamit ñun ñëpp ay doomu Ngoundiane lañ su jour ba nañ ko def ci fair ci yar ak tegin ndax mooy tax beneen yoon ñu man leen jox beneen combat woote wuñ fa histoire woote wuñ fa dara feet lañ fa woote comme ni ñu tëggee ci saal bi tey vraiment di sant samay xarit yëpp ñoom ñëpp ñu ngi ci salle bi di samay sant samay ay mag ndax tamit woo soo xoolee naa production famille lañ waa Nguñaan a ngi ci biir waa Jaag waa mburuwaay ñëpp a ngi ci biir biram dina sant waaw ndax yëpp lépp yow la vraiment di moo Modou Bouss Modou Bouss ma ngi koy sant bu baax ak Ousmane ndax lii ñoom ñoo koy doxal man duma ci dara di sante tamit Ablaye Mbous Naax TV ma ngi koy sante bu baax ñoom Omar Sali wa ngi fi ñoom Badou la phénomène matu mu ngi nii toog vraiment mu ngi jóge ba mbaaw kon Mbous Naax production ay caaxaan taxul ñuy jóg dañuy liggéey jigéen jóge ba mbaaw ñëw teewal waa Mbous Naax production kon yombul vraiment di sante Cheikh Niang ak soxnaam di leen wax soxna Seex Ñang mooy ñëw Ngunjaan lendemain korité incha allah tamit Seex Ñang mu ngi jàpp ci Mbusnaa production vraiment ndax lii yëpp moo ko lijjant tegkat yii moo ko fi indi yàlla xam na ko kon mënoon naa ne man mbër laa damay bëre dañ maa fay vraiment yemul ci loolu tamit mu ngi ci groupe Mbusnaa production di ko animé vraiment tegal nañ ko mook Zor de tegal nañ ko mook Sangu Njaan ñu tourné waat indiwaat ko stadium Iba la le 12 kon nag vraiment ñu ngi ak moom comme li ko Gara Badajon waxoon buñ koy door a buñ koy door a euh, taxawal ba Badajon de ko ne booy yi dañuy door a ñëw te soo àndee ak moom ak ñoom eh, di nga dem ak ñoom fu sori te yaakaar naa ñu ngi ci yoon wi vraiment di sant ñëpp di gërëm ñëpp tamit vraiment di leen wax wax yombul vraiment tamit Modou Bouss man na bëgg naa mu ñëw tamit sànni ci ay kaddu ndax tamit ñoom ñooy naa production man duma ci dara dama ci ñuul rek yala xam na combat yi taxaw tamit nekkul man maa koy taxawal dañ may woo ne ma combat taxaw na su ma amul avance ma ñëw ci Grand Badajon mu jox ma xaalis ma joxe waaw kon naa production képp ku yaakaar ne man nga koo gal wala man nga koo déstabiliser loolu dangay nax sa bopp waaw Ousseynou affaire bi du Ousseynou du Ousseynou ñi nekk ci ginnaaw ñoom ñoo yore Mbousnakh production kon nag ku yaakaar ne Ousseynou la ndax nga sa bopp Ousseynou du dara ay ndaw lañu dañuy góor góorlu tey su ma fi suñ fi jógee ñun ñëpp dañuy bay jëlaat suñu saag liggéey ay ndaw lañu làmb nekkul suñu liggéey dañ ci dañ cee jaar nii rek vraiment tamit yàlla suturaal nañ ci ndax am nañ ci lu bëri am nañ ci ay xame yu bëri am na ci ay kilifa yoo xamante ne tamit xamante nañu ak ñoom grâce de làmb ji ndax ma Mamadou Mamadou Thiaw tey su ma ko foogoon mu ubbil ma Mbaye Dione su ma ko foogee mu ubbil ma Alioune noonu ak ay ñeneen kilifa yoo xamante ne mënu fee toog di leen lim tamit di sant tamit Catalina suñu sponsor leader vraiment waa King Boisson maa ngi leen di sante bu baax ñu ngi jàppale waa Mbusna production vraiment te incha allah korité incha allah dinañ ñëw jàppale waa Fallène famille jàppale waa naa production ñaari journée yëpp dinañ ko sponsoriser incha allah merci biram jërëjëf xam naa wax ji bëri na te amul solo vraiment ziar naa ñëpp kontaan naa ci ñëpp. merci beaucoup ñu indi sama xoloowaale xam nga maak moom jubóowuñu ñu daajal sama doom ji di wut ci moom bës naan mooy numéro un te kee toog mooy numéro un kii mooy numéro deux ah, ah déet kenn ku ne ak ki nga faral man sama doom laa faral xanaa am naa ci droit nag George Bush. fu mu fekk xeex nangu ko moom du xeex boo ko saaga du xeex waaye bu fekkent ne da ngaa saaga Ousseynou mu xeex boo ànd ak biram xuri ko mu xeex te moom boo ko xuree du xeex de boo ko tooñee moom du xeex combat bu mu fekk nag nangu ko nam rañ say gitangaas nag mënoon nañ laa tëggal Bush gaa yaa ngi nii yaa ngi nii yaay mbuus naa production Bush loo wax waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah gars yi maa ngi leen di nuyu bu baax di siyaare ñëpp rawatina ñu teew ci bés bi di nuyu bu baax suñu papa Bada John di nuyu Moussa di nuyu ñëpp daal rawatina waa Mbousnakh Production suñu gannaay yi ku ci mel ni gay papa yi boog gars yi yëpp di nuyu Ousseynou bu baax. di wax comme li nu wax rek wala ay nit yëkkati seen xaalis jox la ba pare nga dem toog sa kër di indi lay wala di yónnee loolu duma ko nagul kenn ak koo mën a doon parce tey du ñu def mën a lijjante tegu bés daf neexul saal bi rek pour nga am fii bés rek yombul parce que gis nga démb lañ ko jàppoon mu foom ñu indiwaat ko tey coono boobu yëpp yow war nga koo mën a xool di leen ñaax chaque jour ngeen gën a góorgóorlu ñun amuñu ñu dul yéen ñun yéen la ñu am te ngeen mën a ñu ñëw buñ leen tegalee bu ngeen amee ko combat dañu ñëw buñ leen tegalul tamit ñun dañuy ñëw parce que ñun ñun ak yéen benn lañu di woo gaa yëpp di leen ne nañ gën a góorgóorlu ñu ngi dëkk Ngunjaan Mbus naax Jaag ñun ñoo mën a booloo doon benn mën a am champion comme gu mel ni Boy Niang Balla gay wala leneen di woo gars tamit ñu jàppale booy yi nan jable mbër yi rawatina autorité yi nan jàppale booy yi di leen jëndal ay ticket stade wala ay bloc boo ko defee booy yi ñu mën leen a tegal gara combat parce que man tamit mënuma jël gara combat di la fay mil wala 1 million wala nga ñëw indi ma on million kese kon man maa ci perte. tey ma dem tegal beneen bu mbër mu ñëw jaay ay 6 bolok wala 7 bolok kon kooku laay gën parce que ñun dañuy liggéey lu ñu bokk bokk ak yéen ñun dañuy liggéey di wax mbër yi tamit ngeen gën a góorgóorlu bu baax gën a matlaak gars yi te xam ne sport yombul te sport boo ci ñëwee surtout nga ne ko mbër da ngay mën a matlaak gars yi nga wàcce sa bopp gars yi ñëw fekk si la di ñaan tamit surtout waa Fallène famille tey famille la tey ñu demee ba booloo nekk benn seen xel jëm ci lam ñu gën a jàppale ndaw ñi kon ba léegi Mbour Production la ñuy dooleel kon ñooñu lu ñu woote ak waa Mbousnakh production lu ñu woote benn la bes ba di leen woo comme premier jour korité bi la gars yi nañ teel a ñëw jàppale leen ci liggéey bi bu bit seetee tamit ñoom ñu ñëw jàppale ñu ci liggéey bi parce que ñun loolu kese tax ñu jóg comme li Ousseynou wax léegi dafa am solo ñun liggéey moo ñu tax a jóg keneen ku toog di wax leneen wala di gis leneen ñun gisuñu loolu ñun li ñu gis nan la ñu def ba mel ni ñoom Gaston nan la ñu def ba ñii ñu teg nii tey ñu leen di tegal di leen fay ay million ñu mel ni booy ñaa ñu mel ni leneen ñu mën a au moins ñu jëriñ Ngoundiane ñu jariñ seen famille jëriñ ñëpp ñun looloo nu tax a jog mais ay toog ji wax ñu naan diwa ngi ne wala leen man boog loolu intéressé wu ma man loolu intéressé te xam naa Ousseynou loolu intéressé wu ko mais nun nañ gën a booloo doon benn te ñu xam ne ñun ñoo bokk ndey ñoo bokk baay seeñag ñu ngi koy remercier bu baax a baax suñu garant la suñu lépp la tegal nañ ko tegalaat ko te saa ñu wootee moom mu ñëw di ci jàpp comme ni ko Ousseynou waxee jarul ma ciy tobaat kon xam nga kooku suñu nit la boo ñu fekkee ak moom da ngay foog ne nit ak doomu la rawatina tey kee nga xamante ne mooy buus mais di sama jërbaat nga xam ne tey fu ma woote mu ñëw fu ñu taxaw mu ñëw taxaw tey fii depuis 18 heures ba léegi moom mu ngi fi te kooku bu ko neexee mu ñu naan teguñu ma samay moroom la ñu teg mais saa ñu wootee mu ñëw taxaw ndax ñu jim ak jëmu Ousseynou mii rawatina dëkk bu ñu dëkk ñu dëkk mbuus naa kon mbëri dëkk mbus naa rafet na tamit aussi bu ñu wootee ngeen ñëw di jàpp ci barrière yi di jàpp ci organisation bi loolu man Modou Ousmane maa leen ko wax parce que loolu tax bu subaa ma sawar mën a tax ñu tegal la combat wala leneen ñu ngi koy remercier bu baax di suñu jërwaat di ko ñaanal tamit combat bi taxaw barki dem yàlla suñu borom defal ko ci ndam ñun moom la ñu am lu mën a am moom la am te chaque jour ñun ñoo ci ginnaaw te dara mënu tax ñu bàyyi ko waaw di ñaanal gars yëpp di remercier bu baax a baax suñu père Badajon xam na man xam naa comme li ma wax gaa yi écurie Badajon ku dul mbay gu geeg nokk yaa njëkkoo ma fa kon lu fayew xam naa ko nu Badajon mel xam naa ko xamaluma ko lu dul lu baax ak ndaw buy lu nekk ci dara mu ñëw di ci dugal loxoom di yëkkati alam du ko def ñun defaluñ ko dara moom def ñu jàppale te yara rek tax ñu ngi koy remercier bu baax di ñaanal bu gudd fan ak weer di remercier gars di jéglu ci cadeau bu gudd bi. ay ca Ousseynou waaw li ci bugg dolli rek balaa ñuy balaa ñuy dem ndax tamit komba eh, bi xaalis bu bëri lañ ci finance tamit te tamit dañuy liggéey. waaw combat